waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu baad auzu billahi min alseytaani rajim alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillahi salallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an asxaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala xawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim ñu ngi lay fay nuyoo du nuyu mboolem fu nit mën a nekk te dañuy seetaan di ñaan yàlla lépp luñ fi nar a waxtaanee yàlla nekk jëriñ ñeel képp ku ñuy déglu di ndokkeel fu jullit mën a nekk ci àdduna bi ci at mu bees mi xam na moom lañ dugg di ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla defal atam xéewal yàlla defal ñu ko atam naataange yàlla defal ñu ko atam wërsëg te yàlla dañee ci suñu mboole mi jafe-jafe ak suñu mboole mi gàllankoor ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin yaa rabbi jërëjëf sëñ Mouhamed Diop defe naa ne li ñu war a waxtaanee génnul li nga xamante ne nii moom mooy xam tey ñu ngi fas yéene waxtaanee ci wàllum xam-xam waxtaanee wàllum ñaan ak lépp loo xamante ne yaa ngi ciy yëngu te di ci dimbali askan bi ñu fas yéene cee gis seen bopp fi may tàmbalee na du fenn fu dul ci bunt bi ci jaaruwaay bi ndax képp koo xam ne mu ngi wax wàllum ñaan defe naa ni mënoo wax ñaan te doo jaar fi nga xamante ne moom mooy seet tey sëñ Mouhamed Diop boo mu doon wax ci wàllum seet lan nga may wax. waaw alhamdulilah laaj nga laaj bu am solo kenn mënta wax ñaan te doo wax seet parce que dinaay wax ne ñaan yàlla fekkee am na bunt bunt ba ca njëkk mooy seet ndax nit mënoo faj ay soxlam te xamoo lan moo gàllankoor soxlam seet nag ñun yàlla may ñi ci dinaay wax ne néew na ma seetal doomu aadama te du ma gis lang may seetloo yàlla may ñi ma ci li arab di wax laa mooy loxo bu kawe te ma xam ko doon lu ma jàng maîtriser ko lool te seet dafa am solo ci dundu doomu aadama parce nit lépp lu mu dugg war naa xam lii may dugg ndax njëlbeen gi dana baax lii may dugg ndax mujj gi dana baax te dinaay wax ne nit tamit war naa toog ba ci yàgg mu examen boppam mooy seet man sama mbir yi lan moo waral sama mbir yi dëgër wala lan moo waral sama mbir yi am gàllankoor wala li tax man lépp lu mu dugg rek mu tag te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ci xadis bu xam solo mu ne man xaaba man istixaara wala na daama man istisaara mu ne ñaar ñi duñ perte mukk ñu ne ko kan ne ki nga xam ne balaa dugg ci mbir daf koy xool ak ki nga xam ne balaa dugg ci mbir diisoo mun a ñaar ñu duñ perte mukk moo tax seet am dund am solo lool ci dundu doomu aadama dinaay wax ne képp ku la ëpp lu muy dem ci médecin moo la gën a am wér yaram waaye képp ku la ëpp lu muy seet ay mbiram moo la gën a mën a am résultat bu baax ci dundam te yàlla def ne may nañu ci loxo bu kawe képp koo xam ne daal mooy sa soxla boo ci jëflanteeg ñin li nga bëgg moom da ko am bu soobee yàlla incha allah. léegi ci wàllum seet googu noonu ndax dafa yem ci wàllum seet kese wala da dugg ci wàllum listixaara waaw man sama seet a ilmu ramli la te ramli mooy seet boo xam ne amul dara lu muy xoolal ci nit te du ko gis di xam-xam boo xam ne yàllaa ko wàcce woon ci jibril mu wàccee ko ci yontu yàlla xidris alayhi salaam à part ramli nag listaxaar laay def te listaxaar kenn nit rek laa ci jël à loolu nag jeex na su ma la seetalee ba pare nag du ñàkk boo seetee ba pare buntu dana génn moo xam nit mënoo koo seetal te du am ay sarax te sarax di loo xam ne dafa am solo lool ci dundu doomu aadama yonent bi sallallahu alayhi wa dana wax ne asadaqa tam na ul mawtu suu'i watu fakku balaa sarax dina fekk deegu ñaaw gu waroon a ñëw ci nit te dana ko fegal ay musiba ak i balaa nit dana nekk ci ay xat-xat nekk ci ay jafe-jafe nga digal ko benn sarax mu def ko yàlla ubbi ay mbiram nit dana yootu dara mënu koo jot nga dugal ko sarax yàlla defal ko tawfiix nit dana xëy war a def soog war a def accident te leer na la accident bi la war a def nga digal ko benn sarax mu mucc ci accident boobu nit war naa xëy am malees bu bon bu ko war a dal nga digal ko sarax mu def sarax boobu sarax ba muccal ko moo tax yontu bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne na ngeen jàng seen feebar yi waaye na ko jangee ci sarax ndax sarax lu mën a fànq ci doomu aadama dana sarax nit waroon naa dee sax nga rey gàtt sarax ko jot bakkanam yàlla yëkkatu ko ci feebar boobu mooy ko mu dundaat at yu bari te sarax dafa am solo moo tax. tax mhm. nit ñi nañu bari lu ñu saraxe. Mhm. léegi maa ngi maa ngi maa ngi dégg yaa ngi insister bu baax ci li nga xamante ne moom mooy wàllum sarax sànq ba léegi li ngay wax danga nga danga da nga ciy gën a jiital li nga xamante ne moom mooy sarax ndax say mbir li ci ëpp bokk wala ci li ngay liggéeyee dafa aju ci wàllum sarax wala déet. waaw man sama mbir lu ci bëri daanaka bu ma la xoolee lu ci ëpp ay sarax rek su ma la ko waxee man naa yem ak yow ci loolu te yàlla say mbir parce que sarax dafa am solo mhm. nit mën nga koo ñaanal ci ay sarax rek te doo ko jox mu sangu parce que nit dina am soxla boo xam ne mbiram mi du laaj sangu sarax rek lay laaj hmm. jang koy digal ci sarax mu tettal ko bu ko defee rek da nga gis ne la mu yóotu wala la mu doon sàkku ci yow dana ko am facilement hmm. te am solo comme nu ma la ko waxee suñ ba yontu bi sallallahu na su ma bañ toona sonal sama xeet wi kenn ku nekk trois cent soixante cinq cër mu ngi ci cëru doomu aadama bu ma soñu bañu toona sonal sama xeet wi kenn ku nekk heure boo xëyee benn cër boobu da nga ko da génnee sarax at mi boo ko calculé trois cent soixante cinq jours la moo lay war ku nekk heure bu xëyee war na génnee sarax ngir benn cëram boobu Mm-hmm. parce que sarax lu mu lay fegal di comme li ma la wax léegi nit dana war a dee nga def sarax bi nga nga mucc ci nga mucc ci deegu nit danga war a xëy war a accident nga def bi mucc ci nit da am ay gàllankoor di lijjanti ay mbir mbir yi tagga témbét tagga témbét dëgër mm-hmm. ñu digal la benn sarax rek nga def ko yàlla ubbi dékkanti mbir yëpp moo tax sarax dafa am solo man nag danaay wax ne sama sarax balu fetal la mm-hmm. képp koo xam ne seetal naa la ba digal la la may la wax ci sarax nga def ko boo ko defee moom sa mbir da nga gis résultat bu gaaw bu soobee yàlla. Uh-huh. jërëjëf léegi ci wàllum décanté situation boobu noonu defe naa ne képp koo xam ne ñëw na ci yéen ba nga xamante ne seetal ngeen ko ba gis bunt yi ñaareel li ci ëpp dinañ leen di tiis ay soxla yoo xamante ne li ci ëpp ci wàllum ubbeeku la jëm tey jii nii boo ma doon wax ci wàllum ubbeeku ak ñi nga xamante ne seen mbir dafa dëgër taxaw ndax ñooñu tey jii am nga ay secret yoo xamante ne nii woo ko jëflanteek ñoom rek seen mbir dina décanté wu. waaw ubbeeku moom yàlla ma ci dimbale amul kenn ku ma ci mus a jëflanteeg nga dellu ginnaaw képp koo xam ne jëflante naa ceeg yow ci kanam rek nga jëm te yàlla dimbali na mi ci at mii ñi nekk am na ci loo xam ne dañ koy liggéey ci benn sunguf moom la tuddee soo bi ci at mii lañ koy liggéey ci weer wii dinaay wax ne képp ku ko am fexe ba sangoo ko ci at mii nga dugg ci at mi da gis ne at mii day nekk ci yow atam yomb-yomb dafay nekk ci yow atam wërsëg dafay nekk ci yow atam xaalis mm-hmm. boo ko doon sangoo te bët bu set nit ñi ñoo la daan dimbale boo ko yàlla defee ba nga am ko ba sangoo ko ña la daan dimbale yàlla ñu dimbale te wërsëg dalay yomb alal dalay yomb alal moom dootoo tàqalikook moom te ci at mi lañ koy liggéey ci wàllu wërsëg ci wàllu xéewal ci wàllu ubbeeku mm-hmm. am na ci yeneen yoo xam ne tamit dañ koy liggéey man dinaa wax ne nit taxaw benn place amut nit benn da dem ci kanam wala nga dellu ci ginnaaw waaye taxaw benn place amul te képp koo xar dëndam lu muy ñaan yàlla mooy dem ci kanam waaye ñaanut yàlla dem ci ginnaaw dem ci kanam nag mënoo koo am lu dut danga am cangat gu baax goo xam ne dafa neex ci yaram te cangat googu boo ko cangatoo wërsëg ubbeeku la wërsëg dikkal la xaalis dikkal alal la dikkal la parce que dinaa wax ne nit ndaw fu mu man di toll yaramam dafa war di neex yaramam dafa war di neex di saf-sàpp di sangoo cangat yoo xam ne foo ko sangoo heure boo génnee lépp looy lijjanti du am taga témbe parce que nit warta tey jug dem di lijjanti dara mi am taga témbe bu yaramam neexee rek lépp lu mu yóotu rek yàlla daf koy yombalal te loolu nag mënoo am ci buntu ubbeeku ubbeeku danañ ci liggéey comme soo boobu ma wax la comme moom la ñuy liggéey ci nga xam ne dafay ànd ak boo ko sangoo pare karnaar nga sànni ko ci gétt wàllam ubbeeku daal moom ci gàttal amul kenn koo xam ne naa ci jëflante yow nga am ci dellu ginnaaw bu soobee yàlla. maanaam maanaam maanaam ci wàllu ubbeeku daal su ma la déggee mooy bëri ay buntu yoo xamante ne mën nga faa jaar ak doomu aadama. bëri na ci ubbeeku bari na bunt yoo xam ne mën naa caa jaaral nit léegi yàlla ubbeeku. ubbeeku moom damay sant yàlla ci loolu amul kenn koo xam ne mos naa jëflante ak yow ci cadre ubbeeku ñu dem ci nga dellu ginnaaw. yokkute rek moo xam ci domaine bu mu bu ma buñ mën di jaar ci yokkute rek ngay am ci sa dund waaye dellu ginnaaw moom day dañ ci sa dund. Mhm. kooku moom sama sama domaine la moom yàlla ma ci dimbale ma man ko doon lu ma maîtriser doon lu ma xam. ñu wàllu ubbi ubbi nit. waaw léegi bu loolu weesoo defe naa ni bu fekkee ne yaa ngi def ay jéego pour ubbi ki nga xamante ne moom ay mbiram dafa taxaw dafa taxawoon tey jii nii bu demee ba situation mu décanté wu dina soxla li nga xamante ne moom mooy kaaraange ndax defe naa ni kenn mënut a wax ubbeeku te doo wax kaaraange kaaraange googu noonu ndax am na ay mbir yoo xamante ne boo ko jëflanteeg nit ki rek dina mën a taxaw ba nga xamante ne kuy jéem ci moom dara rek du sotti. waaw dinaa wax ne kaaraange mooy dund doomu aadama nit kaaraange mu ëpp solo ci lépp li nit man di ut parce que jamono bi toll neen foo xam ne nit ñi dañoo xañaan seen xañaan àgg na ci buñ gisee nit di am teraanga sax lépp luñ mën a def pour baare la wala yàq teraanga googu dinañ ko def man nag dinaay wax ne képp ku ma jox sama kaaraange nit ku yàlla bind liggéey la mu jàpp ma xaj ci yoonu sëriñ. ndax lan foo ko teg. li ma xam la képp koo xam ne jox naa la kaaraange nga sangoo ko nit liggéey la mu jàpp ma xaj ci yoonu sëriñ. loolu day na te képp ku ma jox sama kaaraange am na ci yoo xam ne mbott bu dee lay ànd ak nga sangoo ko boobu dinaa wax ne bis boo ko sangoo ci tooyaay nga jàkkaarlook sa noon ci subateel nga sangoo ko ci tooyaay bi jàkkaarloog sa noonu ci subateel bi bisab keroog boobu yendu ci kaw suuf. ah rëy na de. am na ci beneen boo xam ne ñaxu armeel yu jugee ci biir almer ak doomu balu fetal lañ koy booleeg ànd nga sangoo ko. boo ko sangoo ba pare ñax mi da koy jël nga sànniwaat ko ci armeel képp koo xam ne la liggéey na la ni nga jëlee ci ñax yi ci armeel yi delloo ko fa mu liggéey la nga sangoo ñax mi delloo ko fa ci jamono jooj mu liggéey la balaa un mois da nga fa nga fa nga yóbbu ñax mi ci armeel yi da ko fa yóbbu. maanaam su ma déggee ci say biir wax mooy maanaam sa kaaraange boo ko ba defal nit ba mu jëfandikoo. ku la liggéey dana dem Barzak. ku la liggéey Barzak armeel lay fanaan. ku la liggéey ci armeel lay fanaan. ma defal nit kaaraange nit liggéey la bu jàpp du am mu ko ci kaw suuf dinaa wax ne jamono ji lépp lu nit mën a ci àdduna ubbeeku baax na lool waaye lu nit mën a yittewoo ci àdduna am kaaraange moo ko gën. Mhm. parce que nit tey boo ubbeekoo am alal ju bëri nit ñëw liggéey la mu jàpp dootoo talate alal ji nan ngay def ba wér rek laay tal. Mhm. moo tax nit ñi balaa ñuy ut di njëkk di ut dara nañ fexe ba belande seen yaram yi ba nga xam ne nit du nit li alxuraan di wax ne nit bu la tooñee am nga xàq ko soo mënee jéggale moo gën. Mhm. waaye man dinaa aar sama yaram ba nga xam ne ku ma laal da nga xam ne laal nga weñ. te képp koo xam ne pare naa ci yow ci wàlli kaaraange képp ku la liggéey mu jàpp ma dog ma ma dog sama kurus ci wàlli sëriñ ma dog sama kurus ci wàlli sëriñ sama kaaraange ku ma ko jox ku la liggéey dem barsax parce que nit ñi dañoo xañaan kaaraange kooku yéeme na de sëñ Mouhamed wallahi la azim képp ku ma ko jox nit liggéey mu jàpp ma dog sama kurus te ku la liggéey dana dem barsax macha allah kon defe naa ne ñun ñoo ko déggandoo yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi ñuy seetaan ci 221 people ki ngeen jàkkaar lool moo di Serigne Mouhamed Diop te képp koo xamante ne nii soxla nga ko numéro mooy affiché noonu ci suuf dégg li mu wax ci wàllum kaaraange léegi na bala ñoo xuus bala ñuy xuus di jàll ci yeneen laaj yi balaa ma koy fàtte dama bëggoon nga ñëwal ma ci li nga xamante ne moom mooy leket gi nga xam ne gis naa ko léegi biñ dugg see nga teg ko def ci ndox bi defe naa ne image dinañ ko wane noonu mu jàll ci ci ci image yi lan nga ñu mën a wax ci leket googu noonu. waaw gi de. képp ku fexe ba sangoo ko te benn yoon lañ koy sangoo wala kañ leget gaa ngi noonu. benn yoon lañ koy sangoo Macky Sall mi njiiti réew mi sax bu ko soxla woon du ko fekk ci pale bi képp ku ko mën di soxla fii la yaa koy fekk si fii. du bouger du bouger benn yoon rek la koy nit sangoo boo koy sangoo nag am na njëg koy sangoo waaye képp ku ko sangoo bu ñu la sànni woon kortu nga ñëw sangoo ko tey kortu googu dafay dañ. ram nga sangoo ko liggéey yooyu dafay dañ ku koy sangu daal yaay xam lépp loo ci yéene fekkee danga koy sangoo yéene ci ubbeeku boo ko sangoo da nga ubbeeku fekkee da nga koy sangoo yéene ci jigéen booy bëgg mi bañ nga yéene ko ci def ci li nga ciy def ma def ci li muy def nga yéene ci yéene boobu sangoo ko bu soobee yàlla jigéen boobu dana lal topp fekkee da nga koy sangoo nga yéene ci lépp loo xam ne dafa nekkoon ci man mu dañ boo ko sangoo lépp liggéey boo xam ne jamono bu ngay ñëw ci man fekkee ay liggéey dafa nekkoon ci yow boo ko sangoo dafay dañ moom daal noo ko yéenee rek loolu la lay jox. liggéey naan la boo ko tegee latéral mu fubal boo ko tegee attaque mu fubal foo ko teg mu polyvalent la. ñàkk ko mos daal óorut. ah macha allah polyvalent. boo xoolee lu nekk ci biir du yëfi gone. yi nga gis mu nekk ci biir nii. man kañ man kañ mbir yi ma gis ci biir sax daf ma yax yi du yax yu ñu tudd. xoor yi moom nit ñi mën nañ koo xam. yeneen yi nag yii doo ko gis feneen. yax yi lu tax mënuñu koo tudd. du ma ko tudd parce que du yëfi gone. lu nekk ci biir du yëfi gone ku fexe daal ba sangoo ko di nga xam ne sangoo nga mbir ku fexe ba sangoo ko di nga xam ne sangoo nga macha allah. léegi léegi léegi yooyu may séen nag ci wet beneen wet gi ren yeeg yooyu. waaw yére bii moom pour kaaraange la. bi tamit ci kaaraange yi la bokk. dana néew nga gis ko nga gis ko feneen fu dut fii yére bi néew na nga gis ko feneen ku fu dut fii. kii kum xas ba dugg sa yaram nit mënutu laa def dara ci àdduna ci kaw suuf mu jàpp la xas ba dugg ci yaram sa yaram. amul benn nit bu la mën a liggéey mu jàpp la ci kaw suuf. te kum nekk ci sa yaram tamit da nga dund danga gudd fan. kaaraange gu ànd ak gudd fan la. te yaakaar naa ne nit nit lépp lu mu mën di am ci àdduna mucc ak gudd fan la moo moo gën ci àdduna. léegi lii da ngay xëy rek di ko sol wala. wala guddee guddi nga koy sol rek. guddee la neexee semaine bi nga sol ko ci benn yoon. Mm-hmm. bu la neexee nga soo ko di continuer moom waaye kum nekk sa biir yaram nit du la liggéey mu jàpp te da gudd fan ci kaw suuf. yii moom mooy socc pour wërsëg bi socc bi tey ji boo doon ngoro jigéen mu të nga jël ci benn soccoo ko dem ci jigéen ba la nga bëgg ci moom da ko am. mbaa loo ko wax mu ne la waaw. waaw walla wala ngay soxla ci nit dara di ko laaj mi bañ nga fex soccoo ko dem ci moom la nga soxla ci moom boo ko laajee dana la ko jox. boo koy socc yàlla dafay dëgëral sa kàddu looy wax nit ñi dafay saf nit ñi te koo wax ak tamit la nga wax ak moom dana ko respecté dana ko def lépp loo wax ak nit dana ko respecté dana ko def bu dee boo deyaale woon ak nit dara tey ji wax ko ko muy bañ nga soccoo ko oo ko wax ko ko la nga ko wax dana ko def fas gi nag fasu xaalis la moom. fasu xaalis. <laughs> mosoo koo dégg de. Ah, waaw fasu xaalis man ay fasu ndigg laay dégg ak. ay fasu fasu xaalis la. du du gàllaaju gone. gàllaaju mag la. mag ñi ñoo ko daan liggéey te yàlla def na ci mag mu ma ko jëlee. Mhm. ren jii la am juróom-ñeent fukki at ak ñett. képp kum ko mosal liggéeyal dafa ma daan oo na ma liggéeyal liggéeyal ma ko téye ko diw dana ñëw jël si ko. wax naa ko beneen bu dul yoon at yii ñu weesu ci la ma ci jox ndigal na ma jox naa la ci ndigal may naa la ci ndigal nga ci liggéey parce que dama ko liggéeyal ba mu gërëm ma te bëgguma jël dara lu dul dama cee am ndigal. Mhm. te yàlla def na mboolem koo xam ne man mos na maa oo na ma liggéeyal liggéeyal ko ko nga jox ko mboolem ku ma ko mos a jox gis naa ne yàlla yokk na ko ba mu defal góor góor teraanga te teraanga yi mu daan defal góor gi sama loxo lay jaar. parce que képp ku mu ko daan jox ci réew mi fii ci Ndakaaru maa la ko daan jox boo ñëwaat tamit di ko joxaan teraanga teraanga gi sama loxo lay jaar. te ba avant ngay ñëw ci man xam naa ña ko daan jox avant ñi ñëw ci man fan tolloon ba ma leen ko joxee tamit ñi ñëwaat xam naa fan lañ tolloon. képp koo xam ne fexe nga ba am ko daal da ngay gis na wërsëg du tàqali ko yow bu soobee yàlla. <laughs> jërëjëf kookoy sëriñ Mouhamed Diop defe naa ni léegi bu loolu weesoo ñu ñëw na ci sama laaj yi ma continuer ko ñu ñëw ci wàllum cat. cat defe naa ni bokk na ci li nga xamante ne nii li muy gàllankoor ci ay doomi aadama bari na ndax tey jii nii cat moom defe naa ni mbir yi muy tee bari na lool loo mën a wax ci cat. waaw cat de yonent bi sallallahu alayhi dana daan wax ne innal aynul xaqu wal yoon sallallahu alayhi wasallam da daan wax ne bët dëgg la te dëgg dafay wax te yonent bi da daan wax ne mu ne sama xeet bu ci ñett dee ñaar ñëpp bët ak làmmiñ moo leen yóbbu ci biir bàmmeel kenn ki bët làmmiñ buñ ko xoolee lu ëpp ca dégg bët làmmiñ la te am na bët yoo xam ne tey soo doon fondement kër seen bët yi tegu ci keroog boobu ngay gëj a yëkkati mool am na ñoo xam ne tey ba doon fondement kër seen làmmiñ tudd fondement ba keroog ngay gëj a yëkkati mool am na bët yoo xam ne lu luñ la tuddal mu dal la am na bët yoo xam ne lu luñ la waxal mu dal la cat nag ñun yàlla dimbali na ñi dinaay wax ne képp koo xam ne danga ko am boo ñëwee ci lu ma koy dindee ñetti doomu guru ak la muy ànd ak ma jox la ko nga sangoo ko mosoo dégg ginaar gu cet jàpp ak benn ginaar gu weex ginaar foo ko tuddee mu yëlëbu cet du ko jàpp mu cat mën na jàpp lu nekk des ginaar cat moom bu la jàppee moom boo ñëwee ci loolu laa koy dindee bu la jàpp gu nag boo xasee ba sangoo loolu moom cat dootu la jàpp parce que cat dafa mën yàq cat mën na topp nit ba nga xam ne lum mu yàqu cat mën na topp nit ba nga xam ne nit ba nga xam ne dafay nit mën neen la mën neen laa catu ba ngay dugg ci naan sàngara di ko ne moo la ko def yonent bi nee na cat dana jël gëlëm dugal ko ci biir cin te appam jotut moo lay wan na lu garaaw la hmm? dinaay dégg dinaay dégg ñu naan cat dina topp nit ba ci biir bàmmeel. lu de waaw ba ci biir bàmmeel nga dégg lu la ci oo oh, mag ñi mag ñi nuñ ko léebee bu gàtt sax bu rayut simple bu la rayut rek dana la simple dana la indil ñàkk cat lu bon la da baaxut. baaxut parce que yoon bi sallallahu alayhi ba ko yahuud fexelee ci lu nekk mënuñ koo fexel lenn rek lañ def danoo dem ci giir goo xam ne yàlla daf leen mayoon seen làmmiñ dafa tooke woon buñ la cetoo sax mën ngaa dee ñu fay giir ñu ñëw catu yoon bi sallallahu alayhi wa avant ñu ñëw ci la ko yàlla wàcceel wa in yakaadu lazina kafaru la yazuqunaka bi absaarihim lama sami'u zikra wa yaqulu innahu la majnun wa ila zikri lil alamin na ko jàng ko avant ñi ñëw yàlla lenn rek wax yonent bi ne ko nga nga musli ci ñoom mooy nit ñi wallahu yaxsimukum minan naas ndax nit mooy lay cettu nit moo lay gàllankoor nit moo lay indil jafe-jafe nit moo lay indil lépp képp koo xam ne daal sa jafe-jafe la boo fi ñëwee daal yàlla dana la ci defal tawfeex moom cat uh-huh. jërëjëf defe naa ni leeral yi am na am na solo lool ci li nga xamante ne moom mooy wàllum cat léegi ma ñëw ci wàllum rab rab dinay jàpp nit ñu jàpp ko fi mu toll nii defe naa ni ñu si bëri ci yéen bu ñu leen koy indil ñii dañ leen di yeew ñii ñu xool nu leen def wante bari na lool ñi nga xamante ne solo ndax di nga yëngu ci wàllu woowu mooy mbir moo xam ne bokk na ci lu gën a doy waar ci li nga xam ne moo gën a mën a detturul dundu doomu aadama rab dina jàpp jigéen ba nga xam ne góor gu ko labat pour bëgg koo takk ngoro ga tas rab mën na jàpp góor ba tee kàttanam rab mën na xirtal góor mi dem di foye boppam te moo koy gënal mu jaxasoog jigéen ñi rab mën na tee jigéen mu ëmb ba dara desul lu du ëmb bi rab ñëw sëy ak moom soppi ëmb bi mu doon ndox rab mën na la xital nga fayeku léegi alal mu xital la nga tasaare alal ji rab mën na la xital nga téye alal léegi mu yàq alal ji rab dafa doy waar mën na la xital nga toog ci kër gi di merte kenn du la def dara mën na xital nit mu jël paaka jam nit te du xam lu ko loo mën na teg nit léegi nga nekk ak sa borom kër sa rab bi la nga xuloo moom bu génnee nga namm ko na ko dama laa nammaat rab mën na téye jigéen ba du mën a am jëkkër rab daal lu mën a def ci doomu aadama dafa bëri man nag dinaay wax ne toujours rab du ma ko du ko faj xam nga faj mooy loo xam ne mën nga koo def waaye waxtu wu nekk mën na dellusiwaat man rab dama koy sepp ci doomu aadama tegee fële ak rab bu mu mënti doon boo ko xasee ba dindi dootul ñëw dootu ñëwati man du ma ko faj koy sepp ci doomu aadama tegee ko fële parce que du mbir mu yomb moo tax nag koo ci jëflanteeg lam laaj force mu def ko yow tamit lim lim lim lim laaj nga def ko parce que rab dafay fayeku. Mhm. lii fayeku te du mbir mu yomb moo tax boo ci jëflante yow tamit lam laaj kam ku ko bëgg mu nekk ci moom lu mu ko jaral foog mu am solo yow nga mën cee dugg pour li nga bëgg nga mën koo def. man képp ku man di doon daal boo ñëwee moom cew di nga ma lay jox. Mhm. buñ ci àggee ak la ngay sangoo di ko naan ak la ngay suuroo rab moom dootoo ko gis sa biir yaram moom. man dama koy seppi maanaam rab bi daal du mbir mu yomb daal. du mbir mu yomb rab du lu yomb rab liy fayeku la du lu yomb. d'accord du du lu yomb. léegi léegi léegi léegi wàllum waaw nopp moom yàlla dimbali nañ ci mooy diggante góor bu topp jigéen. nopp moom xam nga mooy dig góor gu bëgg benn jigéen jigéen ji di ko dawloo mu investi ci jigéen ji di ko fayal jàngam defakul nekk ba dara desul du takk mu ñëw bëgg a takk jigéen ji bañ. ñun nag yàlla dimbali nañu ci dinaay wax ne mu fekkee diggante góor ak jigéen la rek nga bëgg ci nopp boo ñëwee lañ ci liggéey bu ñu ko liggéey moom jigéen dana la topp comme xaj ñu bi toppee borom fekkee da yor ay famille timit famille bi jubóowul nga bëgg ñu jubóo am na loo xam ne buñ la ko joxee nga def ko ci fois nga togg ko famille bi yëpp lekk ci fekkee da nekk ak say goro ci kër gi te mënoo leen a jubóo wala nga nekk ak say jabaru doom mënoo leen a jubóo loolu tamit ba tey ci cadre nopp la nga nekk sa patron mënu bëgg nga fexe nopp ku mu bëgg la jox la bopp nga nekk ak jigéen bëggoo bëgg mu defal ko lu nekk mu lay dawloo nga fexe ko nopp mu topp la mën na nekk jigéen tamit def danay defal góor lu nekk ba dara des lu takk góor gi war ko waaye képp koo xam ne nopp la moom boo ñëwee bu ñu la ko defalee moom bu soobee yàlla li nga ci bëgg moom da nga ko topp nopp moom du ma ci du ma ci guddal yàlla may nañu ci lu lu yaatu waaw léegi léegi léegi bu ñu génnee ci wàllum nopp damay ñëw dugg fi nga xamante ne moom mooy wàllum waaw bayre dinaay wax na képp koo ñàkk pour nga lijjanti dara mu sotti dana xaw a jafe parce que bayre mooy tax nga mën a am xorom bayre mooy tax nit ñi mën laa sopp te doomu aadama yi duñ jox kuñ sopput. Mhm. képp nit boo gisee mii dox dafa sopp nit boo gisee mi defal jigéen sax da koo bëgg parce que mhm. nit bu la bëgg du la defal. Mhm. bayre nag ñaar lañ ci liggéey am na bayre boo xam ne pour commerçant yi la mooy bayre jaayma jaayma bi. boobu moom pour commerçant yi rek koy defal mooy jaay ma jaay ma beneen bi nag mooy bayra boo xam ne nit ñi dañ lay sopp buntu boo fëgg ubbeeku da ci yomb lépp looy lijjanti day gaaw lépp looy yootu di ko yootu ci nit ñi du am tak-tak boobu tamit mooy beneen bayra bi ci loolu ñoo ñaar yu daal lañ ci liggéey jaame jaame bi ak bayra bi nga xam ne sa mbir du tàggatémbe daal. Mhm, mooy mooy ñaari bayra yi nga mhm. xamante ne ci ngay ci ngay liggéey. léegi ci biir société bi am na ñoo xamante ne nii ay soxna lañ soxna yooyee dafa am ñoo xamante ne nii dañoo tëw a am jëkkër ak ñi nga xamante ne nii am nañ jëkkër sax ñu ngi ci biir néegu sëy bañ ca nekkee ba léegi mun a mënuñoo gis li nga xamante ne moom mooy takkandeer ñaar ñooñu noonu ki nga xam ne dafa tëw am ci kër ak ki nga xam ne dafa tëw am doom ndax am nga loo di jàppale. waaw fekkee ki nga xam ne dafa tëw am doom moom ci kaw bu nekkee borom këram ci réew mi wala fa dund mu nekk fa ak borom këram. ko moom yàlla defal nañu ci tawfiix bu ci yàggu rek laa ci dem tuddi doom fii maris te doom jooj man lañ ko tuddee. macha ko toog na juróomi at yoo xam ne yàlla mayu ko tu tànk. Mhm. ko moom képp koo xam ne yàlla def nga bañ jëflante ci maag yow la ma lay jox nga jëfandikoo ko nga jaxasoog sa boroom kër boo ci jógee da nga jël ëmb bu soobee yàlla jigéen bi nga xam ne nag moom dafa të am jëkkër am na lu ñu lay jox nga jëfandikoo ko ci kaw boo dàqewut ci kaw boo dàqewut nañ lay waxee nga def ko ko weer woo doo ci génn mukk lu dul gis nga góor gu taxaw na la dama laa bëgg a takk ci kaw boo dàqewut xam nga nit ñi nag dañ la ñaanal bañ gis seen jëkkër waaye yàlla ma yàlla baal suñ mbokku jigéen ñi lu ñuy gëmee jëkkër ju baax mooy ko am xaalis. Mhm. te yonent bi daf ne bu ngeen gisee góor ngeen gërëm diineem ak jikkoom rek na ngeen ko seel parce que jikko mooy tax mu mën laa yor yor bu rafet diine mooy tax mu mën laa yërëm leneen la cay doon lu ci gaar la rek alal du sëy nit mën nga sëy moom mu du am dara ngeen dem ba ci biir yow mu jël jabar sa wërsëg ñëw ànd ak wërsëgam yàlla ubbi ko defal ko teraanga. Mhm. waaye nag du na fekk kii amul rek du ma sëy moom képp koo xam ne daal dañ la koo defal te jëkkër rek nga bëgg jëkkër rek mhm. bu weer du weer wi moom du ko gént doo gis góor gu taxaw naa dama laa bëgg a takk ci kaw boo dàqee woon nag. moom force moom bu ñu la ko defee balaa weer wee dee da ngay gis góor gu taxaw na dama laa bëgg a takk. Mhm. góor gu taxaw na dama laa bëgg a moom da ko gis. léegi ñaaray am nga dem sëy ji wala nga dàq ko. ñaaray am nga dem sëy ji nga ne amul dara waaye góor gu taxaw moom pour am ko pour takk moom. di ko gis ko gis moom. di ko gis léegi léegi sëñ sëñ Mouhamed ma bëggoon nga ñëwal ma ci wàllum jaaro yi jaaro yi may dégg jaaro bi jaaro yi jaaro yooyu noonu nu mu demee. waaw jaaro yi de ñaar la. Mhm. ci yuñ ciy liggéey. benn bi pour wàllu wërsëg la képp ku ko takk wërsëg dalay yomb am am dalay yomb ñàkk dana dañ ci yow te foo ko takkee timit amul dara looy lijjant ci réew ma nga nekk mi am tëgg tembe mhm. te wërsëg wu fay séddale da nga ko am dañ ci am wërsëg moom dalay yomb alal dalay yomb beneen bi nag képp ku ko man di takk da nga dund ci réew ma nga nekk ba xëy fa jugee doo dugg koso mukk mbooleem xay bi am ci réew moom benn da ay bi dafay war a am nga jug mu am sa ginnaaw wala nga ñëw na lan moo xewoon fii waaye fa nga nekk doo fa fekkee xay xay du fa am sa kanam te da nga fa dund ba dee doo fa dugg koso te ñaareel bi tamit fekk mu ngi sa loxo bi nga takku nit du la mën a liggéey ba jàpp la hmm. ñaar yooyu rek laa yi ci liggéey. mooy mooy ñaar yi nga takk wala de wala bokk yi ma takk de moom pour man na ah. waaye yu ñuy liggéey yu ñuy liggéey moom buñ ci àggee moom danañ la ko liggéeyal bu soobee yàlla. Ah. waaw waaw ah, sëñ bi muy takk ak yi muy joxee xanaa bokkul. bu ah, buñ ci àggee rek ñu lay xam nga am na loo xam ne man ci sama rawxaani ya la bokk <laughs> ko ko man lay ànd ak waaye buñ ci àggee yow nga bëgg ko lañ lay liggéey ci sa rawxaani rek lañ koy liggéey ah waaw na kon defe naa loolu leer na léegi léegi ma bëggoon nga ñëwal ma ci wàllum samp nit dañuy damay faral di dégg samp nit samp léegi samp boobu noonu laa bëggoon nga wax ma naka lay demee ak bu fekkee yow da ngay samp nit naka nga ko koy sampee waaw samp nit de mooy nga gis nit nga samp ko benn ci wàlli alal mu am alal doon alal ju lew bu mu mën a jëriñoo dañ koy def te luñ koy defee tamit daneen koy liggéey ci guy gu bot daqaar ak yeneen yi nga guy goo xam ne dafa bot daqaar guy gu bot daqaar ak yeneen ya nga xam ne moom lay ànd ak buñ la koy defal dangay ngay ñëw teewee ko am na barab buñ lay yóbbu ci barab boobu nga koy sangoo amut benn nit boo xam ne mos naa caa jëflante ak moom te nekkul kilifa ci wàlli alal wala mu nekk kilifa ci wàlli daraja moo xam dañ lay samp ci wàlli alal wala ñu samp la ci wàlli administration wala ñu samp la ci wàlli société wala ñu samp la ci wàlli football wala ñu samp la ci wàlli musique te mbooleem ñu ma ko mos a defal dégg neen leen ci réew mi mbooleem ñu ma ko mos a defal ci biti tamit dégg nañ leen ci réew man nekk te képp ku ma ko mos a defal tamit ca kaw rek nga jëm ni sibi waaye mosumaa samp nit muy sempeeku ku ma samp ci kaw nga jëm waaye doo dellu ginnaaw mukk bu soobee yàlla. Mhm. jërëjëf suñ Mouhamed defe naa ni waxtaan bi neex na loolu waaye nag danga may baal rek bala ñoo tàggatoo ma dugal sama laaj bii nii waaw laaj bu laaj laaj bu mujj bii nii defe naa ni soxal na ñi nga xamante ne moom moo ñi ñoom ñoo ñuy seetaan rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bitim réew tey jii nii am nañ ay mbokk yoo xamante ne ñu ngi bitim réew yàgg fa lool bëgg ñëw wàcc fi njaboot bëgg leen a gisaat waaye boobu ba tey mënuñoo ñëwaat gis leen ko waral moo di ñàkkum kayit naka noonu am na ñoo xam ne ñu ci biir réew mi tamit bëgg nañoo génn dem tugal waaye boobu ba tey këyit guñ dugal rek ñu rejeté waat ko ndax ñooñu tey jii nii am nga jëflante joo mën a jëflanteeg ñoom ba nga xamante ni képp ku ci amoon problème këyit rek dina saafaraw. waa këyit moom kooku moom yàlla dimbali na ma ci te toujours dama koy wax dama koy def ci buntu sant wa amma bi ni'mati rabbika fahadis bu leen yàlla mayee mbaax ak teraanga na ngeen koy waxtaanee moom yaakaar naa ba ma ko dalee liggéey ba léegi mosuma gis fu ma ci yàlla gàccelee. te mboolem koo xam ne mos naa la koo liggéey rek gis naa am nga ci résultat ba nga bëgg loolu nag dañ koy def ci buntu waa maa bi mat nahmati rabbika fadis képp koo xam ne këyit mooy sa problème yàlla def bañ déggante ci maag yow ba waxtaan ci bu soobee yàlla moom kooku da ko am moom këyit moom bu soobee yàlla bañ déggante ba waxtaan ci buñ doon may juróomi nit këyit sax da ci bokk bu soobee yàlla kooku moom yàlla mosu ma cee gàccal te maa ngi ñaan yàlla nag féeg ba may dundoo yàlla bu ma ci yàlla gàcceel ci kaw suuf yàlla bu ma ci yàlla gàcceel ci kaw suuf. léegi léegi ñu bëgg a dem na waa képp koo xam ne da nga bëgg a dem moo xam visa moo xam ne lu mu mënti doon boobu tamit boo dañ ciy yëngatu ci beneen yoon boo xam ne dañ ciy jaar waaw. jërëjëf kon mu nekkoon Serigne Mouhamed Diop ñu dalaloon ko tey ci seen émission bi yéen a ngi nii jàkkaarloog moom ci seen chaîne bii di 221 people. Cheikh Mouhamed xanaa ma bàyyi la rek nga tàggatoog mbokku téléspectateurs yi lay seetaan ba beneen yoon bu ko defee ñu mën a wëyal li nga xamante ne moom mooy waxtaan wi. waaw tàggatoo tamit dañuy tàggatoo di ñaan yàlla te di wax nit ñëpp nañ bëri lu ñuy saraxee dugub ak mboq ci at mi nañ bëri lu ñuy saraxee dugub ak mboq parce que at mi boo ko xoolee accident yu ci nar a am dafa bëri lool te képp koo xam ne nan nga mucc ci accident yooyu heure boo xëyee boo ko manee del faxe di saraxel sa njaboot dugub ak mboq at mu nara jafe-jafe lay bëri at mu nara ànd ak ay jafe-jafe la te nara at mu nara metti timit lay doon ci yu bari yoo xam ne gis neen ko ci waaye nag lépp loo xam ne yàlla teg na ko rek dana indi lu ko fànq waaye ku man daal di bari di saraxe dugub ak mboq nga koy def ngir ñaan yàlla yàlla fanqal ñi musiba yi nga xam ne moo nekk ci kanam te yàlla fànq ko te dindi bekkoor gi te naatal réew mi tam may ñëpp jàmm defal ñu sutura defal ñu salaam yàlla defal ñu at mi mais atam naataange defal ñu ko mi atam xéewal defal ñu ko mi atam sutura defal ñu ko mi atam wërsëg yàlla dàqal ñu lépp lu ñu ragal ak lépp lu ñu tiit yàlla ñu ko yàlla dàqal te yàlla def ci réew mi jàmm wa ma zalika ala allahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu